félicité Lions yi seen parcours bu baax bi arbitrage bi arbitrage yu arbitre sénégalais yi vraiment jusqu'à présent moom euh, une grande satisfaction la wax dëgg yàlla arbitrage bu baax a baax la def vraiment amul benn faille bu leen mën a mën a reprocher. mais penalty bi effectivement amul heureusement VAR am na parce que VAR bi moo moo mujjee atte sinon su amoonul VAR arbitre bi mënoon na insister siffler penalty. mais je crois que techniquement moom penalty moom amul foofu moom. su doon du VAR dina siffler penalty effectivement mais boobaa erreur lay doon erreur technique lay doon parce que vraiment loolu ku ko xool xam ne du penalty parce que soo gisee Kalidou Kalidou mi ngi éviter bal donc bal dem ci loxo bi donc je crois que arbitre yi war nañ def beaucoup attention ci faute de main yëpp d' ailleurs soo gisee problème yu am yëpp ci faute de main lay amee. mun mun am. soo xoolee charme football bi léegi léegi yëpp yàq na mais VAR aussi am na solo. parce que ay bitu loxo ay bitu hors-jeu yëpp vraiment mi ngi koy dénigrer donc euh, je crois VAR bi cas positif la aussi man je trouve que VAR bi c'est une très bonne chose quand ci football bi ak ci arbitrage bi aussi. waaw man impression am des damay gis VAR bi des fois day favoriser ay équipe sax. des am na équipe yoo xam ne dañ leen di pénaliser am na équipe yoo xam ne tey même foot bi ñu siffle ko tey suba ñu bañ koo siffle même beneen penalty su amee tey ñu siffle ko beneen équipe bi am ko duñ ko siffle ay euh, loolu kenn mul ci dara moom il faut que ñu xam ne c'est ci dans le cadre du sport daal la nekk loolu moom moom moom da nga koy accepté noonu rek xam ne lu ñëw rek moom mooy am moom. arbitrage yi macha allah vraiment gis naa ci de bonnes choses de bons arbitres wax dëgg yàlla moom ñi ngi def seen match parce que léegi arbitrage amatul yàq match ci jàmbur parce que ku yàq match ci jàmbur léegi da nga lay éliminer nga ñibbi donc chaque arbitre a intérêt mu def matcham euh, correctement. donc man d'ailleurs sax je profite de l'occasion pour féliciter l'ensemble des arbitres de la CAN parce que vraiment arbitrage bi moom pour le moment baax na daal te souhaitons que bu final mu continuer baax aussi. Euh, kat bu mujj moom vraiment maa ngi féliciter Lions yi te je suis de tout cœur di ñaan yàlla yàlla may nu ndam aussi non seulement ñu qualifier final mais ñu gagner coupe bi je crois que c'est année bu idéal la. te ñu bàyyi Aliou Cissé ñuy critiquer parce que Aliou Cissé il fait son travail mi def liggéeyam entraîneur boo xam ne bu la yóbbu ba demi finale je crois kooku mënul il a accompli sa mission man damay gis fii Sénégal dañu bëgg critiquer trop je crois que accomplir na mission moom Lions itam accomplir seen mission lu des mooy ñu ñaanal leen rek ñu ñu yeggale ko jàmm aussi. du yomb nag dina metti nag match metti lay doon parce que quoi qu'on dit aussi na de bons des joueurs professionnels yoo xam ne yu nekk en Europe mais man je crois que euh, su dee da ngay joxe favori rek le Sénégal est favori donc nous sommes favoris sur ce match je crois que mooy lu ma ko waxee rek ñu ñooy favori donc war nañ mën a gagner match bi mais lépp ñu teg ko ci loxo yàlla daal.